professeur gis nañ ne démarré nañ campagne de vaccination bi bi ñu ko démarré tuuti rek gis quelques pays européens yoo xamante ne arrêté nañ lii nga xamante ne moo di vaccin bi di AstraZeneca moo suscité ay doute ci ci population bi am ñoo xamante ne nee nañ dafay def ay effet secondaire ba am na ñoo xamante ne sax nee nañ jot na jël seen bakkan ñoo ngi fixé benn tranche d'âge ne boo amee plus de vingt cinquante cinq ci ngay mën a jël vaccin boobu ci yenn pays européen ndax yow jàpp nga ne ne ak kii yooyu yëpp yi ci am ndax jàpp nga ne population bi léegi duñu ragal a dem vacciné wu. waaw li ma la bëgg a wax mooy euh, épidémie yi mës a am ci àdduna bi yëpp mbas yi mës a am ci àdduna bi yëpp vaccin moo leen fi jëlee benn ñaar mbas yi mës am ci àdduna bi yëpp vaccin yi fi ñëw yëpp population yi dañ leen ragal. donc loolu lii du dugg leen nii la mës a demee saa yu vaccin ñëwee population yi dans un premier temps dañ naan wóoluwuñ ko te wóoluwuñ ko bi boo ko dee xool ñaari affaire la ñuy jiital bi njëkk dañ naan boo ko pikiroo mën ngaa ñàkk sa bakkan bi ci topp dañ naan boo ko pikiroo doo am doom moo xam góor nga moo xam jigéen nga donc loolu moom mooy vaccin yi mës a am ci àdduna bi yëpp noonu la ko noonu taxawaay boobu la ci nit ñi mës a am euh, mais li nga xam ni moom moo am mooy tey jii boo gisee nit ñi xaw a am yenn doute ci vaccin yi surtout ñun ci suñu dëkk yi ak yeneen dëkk yi sax dañu jàpp ni dafa gaaw vaccin bi dafa gaaw a génn te daf ci am benn modèle vaccin boo xam ni moom la ñuy wax vaccin à ARN bi nga xam ni dafay dem ci sa ADN bi yenn xeetu vaccin yi yu mel ni euh, BioNTech euh, Pfizer euh, Johnson and donc dafay nekk vaccin à ARN yoo xam ni dafay dem ci sa ADN mais dafa am vaccin yu nga xam ne loolu tamit il faut ñu leeralal ko nit ñi yu vaccin modèle classique ni ñu doon defaree vaccin bu njëkk noonu lañ ko defaree boobu ba léegi maanaam dañuy jël virus bi désactiver ko pikiir la ko bu ko defee yow da ngay mel ni mës ngaa feebar ba wér loolu tax li ngay am immunité maanaam bu feebar bi ñëwee day fekk ne yow virus bi mi ngi ci yow ba pare mooy AstraZeneca ci la bokk euh, Sinopharm bi nga xam ne ñëwoon na Sénégal deux mille deux mille doses yu njëkk yi deux cent mille doses njëkk ci la bokk. donc li ñuy njëkk a wax mooy dalalal xelu nit ñi ni AstraZeneca bi nga xam ni moom la ñuy ragal en réalité dañ koo war a ñemee parce que modèle vaccin yi njëkk a vaccin yooyu yooyu la ñuy indiwaat du bu bees bi premièrement deuxièmement euh, AstraZeneca effectivement bi ñu ko administré en Europe dañu ci gis ay ñeen nit yu nga xam ni dafa am ay caillot de sang donc dañ leen ko pikiir ñu am ay jafe-jafe ñenn ñi mais loolu ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci mbirum vaccin nee nañu vaccin yenn saay nit ki ak organisme nu mu mel du ci ñàkk mu am ay jafe-jafe yu xaw a mel noonu donc war na ñu mën a dalal suñu xel ci loolu beneen aspect bi ma bëgg a wax rek mooy àdduna bi léegi dafa compliqué xam lan moo tax parce que dañ dul déglu ñu xam man médecin dafa may wax professeur Seydi bu ñëwee ni ma piqûre bi baax na demal piqûre ji ma dem piqûre ji professeur Daouda Ndiaye bu ñëwee ni ma vaccin bi baax na demal vacciné ji ma vacciné wu je signale passage que man vacciné wu na man mii professeur Djibi Diakhaté ñàkku naa ba pare jël naa samay ñaari dose ba mu féete boor donc léegi ñu bàyyi kooku professeur Daouda Ndiaye ni la baax na professeur Seydi ni la baax na réseau social bi ni la baaxul nga bëgg a topp réseau social bi y a un problème c'est-à-dire que nit ñi tamit nag il faut ñuy tënku suñuy jëf ci euh, ñi xam li ñuy xamal mooy vaccin bi nga xam ne indi nañ ko dara nekku ci baax na dafay créer immunité donc nit ki na xeex ak nay utiliser vaccin boobu d'autant plus que bi ñu lever euh, état d'urgence sanitaire bi mais gis nga li commencé am ci suñu réew ci ci dëkk bi euh, bërki démb fii ci terrain gaal gi làmbi séeréer euh, ñi ngi fa organiser mbappat bu rëy nit ñi dajal dajaloo fa donc bu ñu deful nag chaîne de contamination bi ni mu tolloon dina gën a graaw parce que ñu ci bëri léegi jàpp nañ ne affaire bi comme levé nañu affaire yi jeex na ñi ngi bàyyi seen masque ñi ngi teg te Europe actuellement ñi ngi ci seen troisième vague c'est-à-dire que dëkk yu bëri ñi ngi delluwaat ci reconfinement France jamono ji may wax ak jaw am na ci un tiers euh, du territoire boo xam ne dañ koo reconfiné euh, boo demee Italie nga dem Pologne nga dem Allemagne nga dem Angleterre fépp reconfinement la ñuy wax solution bi nga xam ne moom moo ci am moom mooy vaccin donc nit ñi il faut ñu dellu ci seen xel jàpp ne fii bu ñuy daf ci am ñoo xam ni seen xam-xam dafa màcc ci loolu ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci loolu yëpp nee nañu nañ dem ñàkku ji donc ñeneen ñuy wax bu leen ñàkku ji seen xam-xam màccul ci ñàkk donc ci réseau social la ñuy nekk di wax ni dafa garaaw bon maintenant effet effet secondaire dafay am euh, ndox sax mën nga koo mu am effet secondaire euh, médicament bu mu mënti doon mën nga ko jël mu am effet secondaire mais ki nga xam ni moom moo lay faj mu ngi lay toppatoo dañu def am dañu mettre en place un dispositif de surveillance pour que effet secondaire yooyu ñu xool naka lañ koy Euh, identifier maîtriser ko ba nga xam ni jafe-jafe du am moom li ñu mën a wax daal euh, jamono ji ñu toll mooy nit ñi nañu dem ñàkku ji rawatina nag ñi nga xam ne dañoo am yenn at yi wala ñi nga xam ni dañu am yenn euh, feebar yi yu nga xam ne bu leen fa mbas mi fekkee da leen di da leen di sonal ñooñu nañu dem vacciné wu ñi nga xam ne nag ay fajkat lañu nga xam ni toujours dañuy jàkkaarloog nit ñu feebar ak yu demee noonu ak agent de sécurité yi nga xam ne yenn saa nga jàpp nit war koo dugal ci oto war a wal koo enquete fekk ne kooku dafa am Euh, doomu jàngoro bi ñooñu euh, ñu def leen comme priorité ñu ñàkk leen mais il faut que population bi ñàkku ñu am euh, une immunité boo xam ni c'est une immunité collective dama lay jox ñaari exemple rek tey jii Israël presque seen opito yi kenn nekkatu fa parce que ñàkku nañu tey jii Chine fa la affaire bi démarré fi mu toll nii presque waxatuñu loolu parce que ñàkku nañu donc il faut que nit ñi delloo ci seen xel nit ñi ñàkku loolu moom mooy dëgg. mais professeur est nga jàpp ne que ragal kese la parce que ñu bëri population ñu bëri dañu def seen bopp ni parfois da ngay dem di jël kenn sur le terrain di ko laaj ci waxu Covid dala naan carrément Covid amul ci dëkk bi am na ñoo xamante ne dañuy posé wu question dañ naan nombre de personnes yi ñuy wax que dañ leen di testé fan lañ koy jëlee dañu jékki-jékki am na benn temps Covid bi dafa wàññeeku ñu jékki-jékki ne deuxième vague ñu bëri def nañ seen bopp que ni dañu bëggoon pour bu ñu indee vaccin yi nit ñi ko jël ko. moo tax ñu ñu ñu wax boppu deuxième vague donc ñu bëri dañu def ni seen bopp que Covid amul. waaw loolu nag problème mu communication la dès le départ. c' est vrai que euh, ci ni ñu communiquer man yàgg naa ko wax. Covid bi mu ñëwee Sénégal dañ ko waroon a ngénte maanaam dañ ko waroon a jox tur boo xam ne ñun xam nañ ko parce que boo ko dee xool au début sax waxuñu woon weddi mais nit ñi dañ doon nëbbatu c' est dire ku feebar sax da koy nëbb bañ ko wane donc xam nañ ni nit ñi dofuñu dina jàpp xam nañ ni feebar bi am na kuy dem bay man dem naa ci benn quartier di laajte benn nit ñu ni ma ay xale ñu ni ma boo jàddee koñ bi koñ bi ci topp di nga jot benn bitig bitig bi kër corona moo ci topp maanaam kër googu dafa xam ñaar ñu fa corona ñu tuddee leen këru corona. donc nit ñi xam nañ ne affaire bi am na parce que fi mu toll nii Sénégal amul ku fi nekk te xamoo nit koo xam ni feebar bi jàpp na ko wala mu faat ko wala nga am xarit wala nga am mbokk boo xam ne am na ko donc loolu nekkut coow li kay moom mooy niñ ci communiquer ba nit ñi. gën ko ñeme approprié wu bañ di def ay stigmatisation parce que loolu moom mooy foofu dañ fa am dëgg-dëgg ay jafe-jafe ci communication bi euh, moo tax ci benn jamono man ma lancé woon ci euh, domaine u Grand Yoff li ma doon tuddee woon nawetaan Covid pour que équipe nawetaan yeeg bàjjenu wax yee chef de quartier yeeg imam yi jël affaire bi def ko seen yëfu bopp mais dañu jël affaire bi benn moment def def ko affaire gouvernement bi kese c'est normal que nit ñi tamit bu fekkee ni gouvernement bi kenn moom mooy jóg rek di wax bu ñu policiers yi sax ñoo doon dem bu njëkk di jëli nit ñi feebar par force ñu leen di tëj ci ay hôtel ak yu demee noonu donc il fallait que nit ñi seen xel xaw a ñaaw mais fii ñu toll nii euh, nit ñi xam nañ ni bu baax a baax a baax coronavirus am na que coronavirus mi ngi faat bon yàlla dimbali nañu suturaal nañu ba la muy faat ci dëkku tubaab yi ak dëkku naar yi euh, nekkul lu muy faat ci ñun parce que ñun xëy na dañu yàgg am feebar yu xaw a niroo coronavirus lu lu mel ni siburu nga xam ne euh, bu ñëwee xëy na doole ji doon am ñun mais nag am na. te nit ñi war nañu jóg fagaru man daal li ma bëgg a wax mooy nit ñi nañuy gën a jox seen nopp ñi nga xam ne dañu am xam-xam ci mbir mi loolu moom mooy dëgg ab mbir bu amee dangay jox nopp koo xam ni am na xam-xam ci mbir mi mais koo xam ne amu ci xam bu fekkee moom la lay jox ay tegtal boo moytul moom dina réer réerwaale la te tey jii ñi nga xam ne ñoom ñoo am xam ci mbir mi te ñu leen déglu xam nañ leen c'est les docteurs Bousso c'est les professeurs Seydi c'est les professeurs Daouda Ndiaye ak ñi ñu àndal ñoom ñoom ñoo am xam-xam bu wér nekk ci mbir mi te ñoom ay tegtal la ñuy jox bokk na ci tegtal yi lu ñu jox nañu dem ñàkku ci pour xeex donc nit ñi il faut ñu dal benn maintenant li ñu ci war a yokk mooy tey jii ñi nga xam ne ñoom ay virologue lañu seen xam màcc na ci mbirum euh, ñàkk il faut que ñu dem nag ñoom ci médias yi ak nit ñi. boo ko dee xool quelque part aussi la nature a horreur du vide cest que nit ñi bu ñu toogee amuñu kenn ku leen wax koo xam ni xam na mais finalement ci ku ñu mënti jot rek bu leen waxee ñu daal di donc ñi nga xam ni seen xam-xam na ci mbirum euh, faj. nañu gën a dem ci médias yi ñu def benn plan boo xam ni plan de communication la ñuy dem ci médias yi di wax ak euh, nit ñi pour que nit ñi mu gën a leer ci seen bopp ni euh, mbir mi nii lay demee nii lay demee boo ko jëlee lii la lay aaral taxawaay bii nga war a am et cetera parce que par exemple ci AstraZeneca boo jëlee benn euh, benn dose da ngay toog trois mois nga jëlaat beneen dose léegi entre ci biir trois mois yi mbir bi mën na laa dal. yooyu tamit médecins yi il faut ñoom ñu wàcc ci ci ci ci médias yi dem di expliquer nit ñi euh, bu fekkee ni vaccin chinois bi la man vaccin chinois laa jël boo jëlee benn dose da ngay toog trois semaines rek nga jël deuxième dose donc man man ci en ce qui me concerne jël naa samay deux dose ba mu pare mais ça n'exclut pas que may yore sama masque que may raxas sama loxo que may moytu voilà donc euh, il faut que nit ñi encore une fois di déglu ñi nga xam ne. Euh, seen xam-xam dafa màcc ci mbir mi ñu leen di wax te li ñuy wax ñu koy jëfee noonu. bon alors professeur une dernière question est-ce que jàpp nga ne transparence am na ci nu ñuy séddalee vaccin yi parce que benn plateforme lañ ubbi nit ñi di ci inscrire am na ñoo xamante ne ñooy kaas depuis le début la ñu bi ñuy soog ubbi affaire yi am nañ ay jàngoro boobu ba tey woowuñ la te da gis koo xamante ne peut-être dafa am xaritu médecin wala dara du soxla sax muy inscrire day ñëw rek ñu ñu vacciner ko. waaw xam nga lii di problème déjà mooy plateforme que vraiment am na xam ne. Euh, xamuñu luy plateforme nanka ko ciy duggee ci internet di am na ci zone yoo xam ne waxuma la internet mais courant sax amu fa alors léegi nag nga bëgg ñu dugg ci ay plateforme di inscrire roog yu demee noonu loolu tamit du du lu jaadu maanaam euh, Sénégal yàgg nañoo organiser ay ñàkk ñàkk moom du fi du bees euh, am na fi programme élargi de vaccination et cetera donc stratégie yooyu ñu doon utiliser bu njëkk nga xam ne da ngay dem ci case de santé poste de santé centre de santé hôpital euh, district yi organiser ko xam nañu chef de quartier yi bu ñu fa demee ci chef de quartier jaar ci chef de quartier dina la wax ci biir quartier bi mag ña nga xam ni ñoom ñoo fa nekk te ay priorité la ñu pikiir leen chef de quartier mën na am une idée peut-être mënul xam lépp une nga xam ne ci quartier bi bu surtout que bu liggéeyee poste de santé infirmier chef de poste bi nekk ci poste santé bi dina xam ci quartier bi ñi la ñu ñu pikiir leen donc mën nañ ko tabaxaat benn façon tabax boo xam ne euh, nit ñi dinañu mën a jot ci ñàkk bi mais man li ma gis mooy que nit ñi au fond ñi ngi dem di ñàkku ji ah nit ñi bëgg nañoo ñàkku ji des fois dañuy am ay jafe-jafe dañ lay wax ni la man dama am problème ci plateforme bi inscrire naa wooto woowaguñ ma euh, xaw ma fan laay jublu et cetera foofu encore une fois il faut ñu gën a communiquer euh, il faut ñu gën a wax ak nit ñi bon peut-être que ñu interpeller le docteur Ousmane Gueye parce que moom mooy RESNEPS donc nekk ci benn partie communication Euh, bu ministère de la santé pour ñu gën a communiquer gën a wax ak euh, nit ñi ñu xam euh, en dehors de plateforme bi yan yoon la ñuy jaar pour mën a jot ci ñàkk bi nu mu gën a gaawee parce que comme ni ma ko waxee léegi bi ñu levé état d'urgence sanitaire bi bi ko président de la république levé nit ñi dañuy ñeen nit ñi dañoo jàpp ni mbir mi jeex na donc or mbir mi jeexul dafa nar a gën a tar bu fekkee defuñu nànk donc il faut que ñu góorgóorlu def communication bu baax réorganiser système bi ni koy doxalee ba nit ñi ku ci nekk nga ni man de poste santé bi nekk sama wetu kër bu ma xëyee dem fa ñu ñàkk ma wala bu ñu ma ñàkkul it dinañ ma wax ne ma euh, léegi da ngay xaar parce que fii rang bi fii la toll ak fii la toll mais bu fekkee ni da ko bëgg a def ci plateforme dina jafe euh, pour ñenn ñi am na ñoo xam ne encore une fois euh, jotewuñu ci ay internet jotewuñu ci plateforme bay xam nan nga ciy duggee di envoyé ak ñu lay jox numéro ngay xaar ñi ci ñi ci jot a def sax déjà peut-être ñi ngi xaar mais am na ñoo xam ne defuñu ko du tout donc foofu il faut ñu am ci lu luñ ci jubbanti Euh, et je crois que communication bi am na ci solo trop encore une fois bon yéen tamit am ngeen ci responsabilité ah yéen journalistes yi euh, ci communication parce que tamit yéen a yor kàddu gi invité ñi nga xam ne aussi euh, seen xam-xam màcc na ci communication ñu wax ñu naka la ñu war a tëralee communication bi yan yoon lañu ñu war a mën a jaar ba nit ñi ñëpp daal di jot ci vaccin bi parce que intérêt bi mooy ñëpp vacciné wu bon maintenant ce il faut voir nag c'est que li ñu jot ci vaccin bareegul Euh, loo bu njëkk bi deux cent mille dose la deux cent mille doses vingt mille doses yi ñu may ko yeneen dëkk euh, mu des tuuti euh, bon donc loo xam ni ku parce que ku ci nekk bu dee di jël deux doses du mat deux cent mille personnes léegi bii ñëw un million trois cent mille doses la ku ci nekk bu nekkee jël deux doses da ngay diviser un million trois cent mille par deux donc dafay nekk autour de six cent cinquante mille doses donc 650 000 doses plus 100 000 yële dafay nekk 750 000 sur une population de 17 millions d' habitants donc des na il faut que euh, vraiment ñu def ay efforts pour euh, am euh, suffisamment de vaccins pour que nit ñi mën a vacciner wu et puis Sénégal mën a protéger wu ñu am immunité collective. parce que au-delà aussi de l' affaire sanitaire de la crise sanitaire c' est aussi derrière une crise économique bu ñu fàtte loolu nit bu ñu bu ñu fajul nit ñi affaire bi jóge fi. dañuy toujours continuer di am ay problème économiques fi muy njëkk xoolal rek euh, suñu suñu hôtel yi daanaka liggéeyatuñu restaurant yi daanaka liggéeyatuñu donc yu mel noonu il faut que ñu gaawantu rapidement atteindre immunité collective pour que restaurant yi fonctionner boîte de nuit yi fonctionner spectacle di am euh, ñiy football di organiser seen football ñiy tëgg sabar di tëgg seeni sabar ñiy dem ci jàkka ji jumaa ya ci église yi dellu fa économie bi doxaat mbir mi mën a dellu fa mu nekkoon.